ñu comp ëslëf ci li gën a fës ci yéenekaay yi bokk yi mbaa jàmm ngeenam ñun dey moom la ñu fanaanoo ubbil ma yëglekaay bi standard xëy bind ci xëtam wu njëkk langu NPP bi ginnaaw coow lu ko topp lépp ngir rek mu amal congrès ci ba mu rek sampe langam gi ak léegi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi NPP xamles na ni dinañu rek amal ab congrès ci weeru décembre ki yor kàdduk lang gi Lamine Guèye Ndiamé moo ko rek xamle nee na seen njiit yi daal dinañu rek taxawal ab kuréel guy rek lootaabee congrès bi te nag ñooñu wër nañu rek réew mi ngir waxtaan ak seen yi ren nu biir yi tëddee mu teg ci ne door nañu village congress maanaam congress ci dëkk yi ak ci goxaan yi maanaam rek woot yi tey rek dinañu ci eh, teg gox yi muy rek constituency yi bu ñu noppee rek daal di amal national congress moom Mr Jammeh daal dina xamle ne ñoo ngi ci rek waajtaay wi eh, bu langu UDP gi samp na ndëndëm ca biir Area Council ngir rek jongantey gox goxaan yi muy rek local government election yi ci atum moom Mr Daabo li mu xamle mooy doy na sëkk ci muy rek toog di xalab rek maanaam rek di criticiser kese mbaa di seetaan moom Mr Dabo di am yaakaar ci ne langom gi di UDP daa ko rek samp ngir rek mu nekk seen la maanaam rek candidate mu teg ci ne nangu na challenge bi te rek dina jébbal kayitami ci UDP moom nag nee na bu ñu yeggee ci càppandaw gi ku langam gi tànn rek ngir mu nekk seen la wax am na ci yaakaar mooy gën Sirifo Sonko mu teg ci ne bu ko UDP tànnul sax dina rek wéyal liggéey bi daal dina àddu ci wàllum luubal lu leer naññ ak nag ñu xarañ te mën liggéey bi honorable Touma Ndiaye jàmbur bu Banjul Saaw daal dina xamle ne Gambie faaw mu yokk pencum ndaw réew mi ngir rek gën a yaatal toogoom yi ngir jigéen ñi nee na loolu nag su amee dina rek tax jigéen ñi gën a dugg ci politique fi ñuy nasee ak noccee moom nag li mu jàpp ne mooy jéego bu njëkk bu ñu war a rek jël mooy fexe rek indiwaat fil constitutional amendment bill bi ngir rek yokk toogu jigéen ñi ci pencum ndawi réew mi mu teg ne lu ñu war a door léegi la ci gi amul lu ñu war a xaar ngir def mi muy National Youth Council xamles na ni dinañu rek soxla fukki million ak benn ci sunu koppar ngir rek amal nekof 2022 Alaaji Jaaju di executive directeur bu kuréel gi ëmb ndaw yi ci réew mi daal dina rek xam ne ne kuréel gi soxla na fukki million ak benn ngir rek dépassu nekof ubbil ma yëglekaay bi atte Kumba Siyaan bi ki ñu tuumal ne moo faat Lamarana Diallo démb la woon ca kanamu attekat bi ca Banjul attekat bi justice Sidi di daal dina sàkku ci state bi ngir rek ñu xaati maanaam fayil lu ñuy woowee indictment bill muy rek liy tax ñu xam koy daan state bi xam le ne démb ci suba gi la ñu rek a jot ci file bi te nag faaw ñu may leen ngir rek ñu càmbar ko justice yi te daal di leen jox fukki fan ak juróom ngir rek ñu xaatim ko atte bi dina wéy ci fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre ubbil ma yëglekaay bi foore yaa bind ci xëtam wu njëkk jëwriñal mbay mi muy minister of agriculture honorable Demba Sabali daal dina wax ci mbay mi nee na ci mbay mi kese la réewum Gambie mën a rek dàqee ndóol maanaam rek pauvreté mu teg ci ne waree suñoo rek yem ci ay baykat yu ndaw faaw a jëfandikoo jumtuwaay xarala yu yees yi muy wéy di xamle ne dafa jot sëkk ngir rek ñu jublu ci mbay mi di rek bay lu ñuy dundee moom jëwriñal mbay mi honorable Demba mi ngi rek woo ndaw ñi ngir rek ñu sóobu ci mbay mi ngir rek ñu wàññi yoonu gaal yi ñuy rek jël ubbil ma yëglekaay bi Banjul mooy dalal fukkeelu ndajeem ndaw ñi ak ñett muy nekkof ren ji Banjul moo koy dalal ndaje moomu nag ndawu réew mi ñooy daje di rek amal waxtaan ci seeni jafe-jafe ak itam wuti saafara ci yooyu jafe-jafe du yem rek ci waxtaan ñeel ndaw ñi Bakary Badji daal dina rek àddu ci ne dina rek jàppalante ak kuréel gi ngir rek ñu amal ko ci anam bu jaar yoon kon garmi tëjël